li jaadu woon ci noonu mooy buñ diggee ci barab bii bu mënta ñàkk noy noy képp la si war a def sees bañ na mayoon man bañ a noyyi desu noyyi te sëriñ Abdou sama soññee na ci lu bëree bari waaye matadik doomu aadama rek moo nu jàpp na ko sëriñ boo waxoon te mat la bu sifaa rek noo ngi koy yeesal suñu sañ day bàkki jox la sàq waaye noo ngi tuub eh. waxuma sax def mel ne defaale nañ ko njabootuk sëñ Tuubaa gi ñoo ngi koy tuub de ndax Cheikh Abdou Samad miy toog ak sëriñ Amsatu miy toog de ñoom xam nañ xàq sëriñ bi te jox nañ ko ko ànd giñ ñu ñoom nag ak nii nu doxee day mel ne dañ cee ànd noo ngi koy tuubal ak matt di rek la ak kër gu ëpp ak ñàkk xam waaye la jaadu woon mooy fii jataay bii daa waroon ni wéyëng sëñ Abdou samat ak sëriñ Xamsatu mën nañ saafoonteeg yow nga duyal leen ba nu fees bu nu gestoo duyal nu ndax sëriñ bi kat ba muy dem ca moom ñi ko toppoon daneen toog leen ma dem te ñëw waaye bi mu ñëwee li mu wax mooy def ne nafa an yii wa biyee yan faxul wara ku am ku mel noonu nag war nga mën a noppalu ndax koo xam ne bu demee du yem ci njariñal boppam day tibb njariñam ëndaaleel sa te bu la bàyyi woon doo xam yoon wa baa boo demee doo am teggin mën caa jot ku am ku mel noonu day la waran ci yow mooy ne tekk te loolaay lii ni ko seen sama waxe kookaay kii ñooñaay ñii kon noo ngi tuub tey jégalu di nuyoo di te di la ndokkeel ci barab bu sell bu tedd di ñu la fekk ak sa njaboot gi tedd yi ñu àndal di la xamal ne dikkaat nañu fas yéene ànd ak yow liggéey bii te am yéene defale la ko ni nga ko bëggee tey ñaan nga dimbale nu ban defe ko noonu nii ndax bokk na ci turu sëriñ bi buy dal muy dal ci noonu rek la desee waaye buñ ko defee ni mu ko bëggee rek li ñu bëgg lépp mu defal na ko moom ndax jàkku na jàkku na ko ndax juba naag boromam ci loolu noo ngi ñaan nag ci barkeb njabootam ku tedd gii foofu euh, sëriñ Abdou samat ak yittey sëriñ sëtu Mbàkke ak bëgg gi bëgg xasida yi ak dox gim mu ciy dox noo ngi joggi ci loolu di ñaan di dagaan sëriñ bi mu gën laa wéral te gën la yàggal loolu yomb na suñu borom lool maa koy ñaan ci barke mbootum xasida yi di la siyaare bu baax di sant bu baax tey jéggulu jataay bi ni mu demee moo waral kàddu yu mënta sori ndax lu bëree bari waaye yow xam nga lépp mbàkke jërëjëf si Abdou Samad noo ngi tub tey jéggulu sëñ Abdou nee na ndegam ñun ñëpp jàkkaarloo nañu ak moom mu xool nu bëti yërmandeem yii mu xool nu bëti yërmandeem yii amatul lu ñuy bëgg amatul lu ñuy bëgg amatul lu ñuy wax amatul it lu ñuy wax day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. mooy ab murid daa war a mel ne néew. nee na ab murid ab murid dafa war a mel ni ab néew. du ne nañ ma wëlbatee nii. du ñu nañ ma wëlbatee nii. du ne nañ ma sange nii. du ñu nañ ma sange nii. ñun ñëpp ay néew lañ. ñun ñëpp ay néew lañ. nañ yem ci loxoy sëñ Touba. kon nañ yem ci loxoy borom Touba. bàyyee ko suñu bopp. bàyyee ko suñu bopp. moo xam li gën ci nun moo xam li gën ci nun moo am li gën ci nun moo am li gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun sëriñ bi xam nga nu sëriñ bi xam nga nu xam nga suñuy xol amatuñu lu ñuy wax noo ngi suñ lépp a ngi suñ ñëpp a ngi suñ fépp a ngi sëñ bi nee na jërë jërëjëf sëñ bi nee na jërëjëf Mbàkke dégg nañu kàddu yi bu baax dégg nañu kàddu yi bu baax alhamdulilahi. amaat na ci bind bu yees peq. amaat na ci bind bu yees peq. noonu ñu rek. ci yi mu ko waxee rek. suñu digg ak sëriñ bi. suñu digg ak sëriñ bi. noonu yi dong la demee. kon suñu kem kattan. kon suñu kem kattan. nañuy jéem. nañuy jéem. nañuy ko nekkal. di ko nekkal. suñu kattan. waaw Samad wax na lépp. nee na sëñ Abdou Samad lépp. néew ci nañ ci doon ay néew fi moom. nañu nañ doon ay néew fi moom rek. daa daanu dolliku. daanu dolliku. daanu daanu noppalu it. daa daanu dund dund sell. daanu dund dund gu sell. am xel mu dal retiix. am xel mu dal retiix. di di di di gën a di gën a di gën a di suñu bopp. di gën a xeeb suñu bopp. ci ni ñuy wute sëriñ bi. ci ni ñuy wute sëriñ bi. noonu rek la. nee na noonu yi rek la. gën a góorgóorlu bu baax. gën a góorgóorlu rek bu baax. nekkal ko rek incha allah. nee na ñu nekkal ko rek incha allah. suñu kem kattan. sunu xel dal na bu baax. nee na sunu xel dal na bu baax. sëñ àll yu njëkkoon a waxee rek doy na. nee nii ko sëñ àll yu njëkkoon a waxee doy na sëkk. sëñ Hamza mii ak sëñ Samad mii. nee na sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. yàlla boole ñu fi toog fi sëñ bi na yàlla boole ñu toog fi ko sëñ bi na nee na loolu doy na sëkk. yaakaar. nee am na yaakaar. doy na yaakaar doy na yaakaar. doy xel mu dalit. doy na it soññu. doy na it soññu. soññu bu baax. soññu suñu bopp bu baax. yi rek la. nee noonu yi rek la. def sëñ bi muy seen lépp. def sëñ bi muy suñu lépp. muy sunu dund. loolu rek la. nee na loolu yi rek la. buñ ko defee rek. nee na buñ ko defee rek. danañ am danañ am danañ am texeeg tey ak ëllëg. nee na loolu rek la ñuy jural. kon nag alhamdulilah. loolu lañ ci mën a yem. nee na foofu yi rek lañ ci mën a yem. tabarkalla Mbàkke tabarkalla. jërëjëf. tabarkalla sori na lool. nee na waaye sori na lool. jotaay bi. yóbbu nañ fu soree sori. yóbbuwaat nañ fu sori. nee na yóbbuwaat yóbbuwaat nañ fu sori. fu dal sama xel. nee na fu dal xelam. alhamdulilah kon jërë ngeen jëf. yéen mbokki taalibe yi. yéen mbokki taalibe yi. seen sababas teew fii mi ngi sababoo ci sëñ Hamza mi ak sëñ Abdou Samad mi. nee seen sababas teew fii mi ngi sababoo ci sëñ Hamza mi ak sëñ Abdou Samad mi. nee na sant leen yàlla bu baax. ngeen xam ne. nee na boo yóbboo ngeen xam ne. yoon wi ngeen aw. yoon wi ngeen am. ajjana rek la jëm. ajjana rek la jëm. alhamdulilah. ñun gaa yi yàlla yi dañuy ñoom dañuy wax ne sax àjjana taxu leen a jóg. nee na gaa yi yàlla yi dañuy wax ne àjjana sax taxu leen a jóg. kon nag. kon nag. sëñ Xamsa mii. sëñ Abdou Samad mii. ñoom ñoom ji romb nañu. nee dañuy jàpp ni ñoom romb nañu. àjjana taxu leen a jóg. àjjana taxu leen a jóg. ridwanullahi rek moo leen tax a jóg. te fagul nañ leen ko itam. te it moom rek koy may. moom rek koy may. loolu rek mooy may ridwaanullaahi. alhamdulilahi kon nañ sant rek nee na mënu si wax mënu si wax lépp jërëjëf jë tàllal leen may Samad nee na dafa am lu muy ñaan taalibe yëpp dafa am baat buñ koy ñaanal daa am luñ bëgg ci yow. daa am luñ bëgg ci yow. te mënaluñ ko seen bopp. te mënaluñ ko seen te mënuñu koo ñàkk. te mënuñu koo ñàkk. mooy nga yàgg fi. mooy nga yàgg fi. yow mi nga xam ne nag. yow mi nga xam ne nag. ki nga fi nekkal. ki nga fi nekkal. mësta tooñ boromam. mësta tooñ boromam. mësta tooñ moromam. mësta tooñ moromam. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te juboo nga ak moom. te juboo nga ak moom. gërëm na la. te gërëm na la. benn baat rek lañ lay ñaan. benn baat rek lañ lay naan. nga ñaanal ñu sëriñ bi. nga ñaanal ñu sëriñ bi. sa jëmm ji yàgg fi lool. sa jëmm bi yàgg sa jëmm ji yàgg fi lool. ba li nga ko bëgg a liggéey lépp nga def ko. loolu ñun nga ko defal. sëriñ bi neel neel na nga fi yàgg rek. ñu dégg ko waxal nu lool rek waxal na loolu Mbacke yàgg fi rek ku neen sëñ Muntaxa na fi yàgg dimbali leen rek wax na ba mu waxee li sëñ Tuubaa defal dimbali leen nga sëñ Tuubaa rek ñaan loolu ñaar bi ñaar ci lam bi jóge ci sa xol bi dama day sëkk wallahi Mbacke yàgg fi yàgg fi rek yàgg fi rek Mbacke yàgg fi rek yàgg fi rek amal njëriñ mu jëpp gi mu jóge ci yéen ji ak sa posté bi jaar ci lam bi loolu dama day sëkk mu ci dolli dara alhamdulillah jërëjëf baax na baax baax na jërëjëf bisimilah sëñ bi